salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi di sunu gaal ca kanam sunu gaal ca kanam nag nekk chaîne bi nga xamante ne dafay promouvoir lépp lu nga xamante ne dafay concerner Sénégal di ko jaarale ci xam-xam ci connaissance di ko jaarale ci am njàngale mais surtout di ko jaarale ci li ñuy woowee benn conscientisation maanaam yeete ci enjeu yi nga xamante ne Sénégal dafa nekk di di ko traversé ak Afrique donc tey nag ci continuité émission bi amoon aljuma bi passé nekkoon gaal gi wala l'expression d'un désespoir juvénile comme ni ma leen ko waxee woon tey dama ci recevoir benn ndaw Sénégal boo xamante ne dafa dugg ci Europe mais nag da ko jaaree ci gaal yi dañu dañuy ñëwaat tey ci moom euh, expérience am ñëwaat ci euh, parcours bi mu def tey ba yegg ci si Europe yaa gaal gi donc ak lan la xalaatee tey Sénégal ak condition yi xale yi di fa dundee ak tamit lan moo war a nekk fondamentalement ay ay ay solution pour suñu ñu mën a am ay politique de développement ak ay politique yi nga xamante ne dafay orienter jeunesse d'une façon façon beaucoup plus concrète ak d'une façon beaucoup plus réaliste donc di leen wax ngeen seetaan ko après nag n'hésitez pas ci commentaire yi ngeen wax ma lan ngeen ci xalaat ah n'hésitez pas aussi bu dee jàpp ngeen ne lu am solo la ci Sénégal ak ci sunu ay ndaw Sénégal ngeen partage chaîne bi ah ngeen daal di koy ngeen daal di koy liker mais surtout aussi euh, ngeen wax ma ci commentaire yi la ngeen ci xalaat dinaa ñëw ñu interagir ci su ngeen amee ay idée a ah, de thème aussi nga xamante ne jàpp ngeen ne na leen ngeen ngeen wax ma ko ci commentaire yi comme ça dinañ mën a xool nan lañ koy jéemee daal di koy organiser pour que mu am li nga xamante ne dina mën a jëriñ ah, dina mën a jëriñ askanu Sénégal donc euh, maa ngi leen di bàyyi ngeen daal di koy seet seetaan. après euh, ñu daal di ci euh, rek mën a waxtaan plus tard ci commentaire yi incha allah rabbi jërë ngeen jëf. sama waa ji laa lay tuddee tey ah ndax euh, <laughs> sa identité dañ koy garder de façon de façon anonyme donc dala jàmm si émission bi ma lay ma lay ma lay jox kàddu gi pour nga présenter wu bala ñuy ñëw ci fond sujet bi. waaw di la remercier monsieur Fafana. bon je me présente Flo Flo laa tudd pour garder anonymat bi bon maa ngi ñëw en Europe en 2013 via la mer parce que j'avais une situation un peu compliquée au Sénégal bah du coup c'était pas mon idée de passer par la mer Mais vu que la situation, parce que j'allais voyager et j'ai passé, j'allais passer au Maroc, du coup, je me am fa problème avec ma IPS, identité aiguë, maintenant, nous devons faire retenir. D'accord. dinañ dinañ ñëwaat ci loolu dinañ ñëwaat ci loolu mais bu ñuy yem ci ci ci ci début bi ci présentation bi xam naa ne anticiper nga sax sama question yi ma doon am pour pour <laughs> pour yow c'est très bien Euh, mais à présentation bi lan moo nekkoon say condition ci Sénégal d'abord. bon Sénégal man am naa fa soxna ak doom bi ma fay jógee bàyyi naa fa sama waajur wu jigéen ak sama famille mais situation yi ma nekk woon bon tey nga xëy suba doo xëy boo xëyee ñu fay la léeg-léeg la fay bon en plus doon naa fa liggéey gardiennage liggéey naa fa eaux et forêt mais fay gi lu yàlla xam doy na da ngay liggéey ba weer dee ñu lay fa ay quarante cinq mille ay quarante mille ku yor jabar doom xam nga ak say waajur war a fay courant ndox ak say besoin famille rek ëpp na loolu mm-hmm. c'est pourquoi ma jëloon euh, initiative tukki bon mais nag yàlla dafa dogal ni ci gaal gi laa mujj jaar parce que man dama dox naan euh, su dee tukki moom géej rek moo ci des dama doon wax ak sama diggante yàlla yàlla bu ma xam Europe kon hmm. mais nag loolu la yàlla dogal situation yooyu moom a poussé ma kii daal ak situation yi nekk Sénégal vraiment. d'accord donc situation Sénégal yi moo la ci gën a poussé kon su ma comprendre li nga wax su desoon si sa coobara rek yow ay gaal doo si mos a dugg naan da ngay voyager. non non loolu moom xalaatuma ko parce que vu que nit ñi ma ci télé bi ñuy ak ñi nga xam ni seen famille yi dañ leen ni perte duñ dootu ñu leen amati de vue même ku dee sax au moins ñu jël sa corps mais duñu am sa du duñu amati ci yow dara xam nga loolu tam dafa metti te gis naa souffrance bi ci parents yi doon dund ak yenn famille moo tax euh, nekkuloon sama bopp daal vraiment d'accord donc yow su may résumé ñàkk xëy moo moo la ci Sénégal d'une façon ñàkk xëy effectivement d'accord donc su ñu ñëwee euh, donc yaa ngi doon wax sànq ci euh, yaa ngi tudd Maroc ah bu ñu ñëwee rapidement tey ci condition de voyage yi euh, donc yow da nga jóge Sénégal ak avion après wàcc Maroc après fin nan nan la demee loolu d'abord. c'est-à-dire non oto la avion wala oto oto oto laa duggoon ba Maroc du coup boobu dama yoroon sama ay pièces yor pièces bu beneen réew ci Europe. mais bi ma ñëwee ba marok ci contrôle yi foofu ak ñoom seen contrôle bon ñoom ñoo xam daal seen contrôle ak seeni machine nu mu demee ñu ni ma kayit yi nga yor baaxul d'accord ba alors man léegi nag ñoom ñu nangu kayit yi jox ma sama passeport sénégalais ak sama pièce d'identité sénégalais nangu pièce européenne yi ni léegi da ngay dagg bee Sénégal nga ñibbi man leen non man mënatuma ñibbi Sénégal parce que yoruma xaalis su ngeen bëggee ma ñibbi Sénégal daggal leen ma bee ñun ma non mënuñu laa daggal bee débrouille-toi ba ne ah c'est bien alors fekk jot na bo jot nañ ma fa téye trois quarante soixante douze heures de garde à vue ci garde à bi nag gis naa fa yeneen xeetu Afrique mhm. voilà am na ci ñoo xam ni am nañu ay mbokk Sénégal léegi nag ci la ñoom ci biir garde à bi mhm. ñu ni man lañ njëkk a bàyyi à 16 ñoom ñi 17h lañ leen bàyyi ñenn ñi 18h ñu ni ma léegi xaar ñu ci buntu bi soo génnee dañ la yóbbu sa mbokki sénégalais yi fi ñu nekk man leen amul problème léegi bi ma génnee mhm. ci garab bi toog si bunt bi ay gis ñaari sénégalais yi ñëw ma xool leen bon ñu ngi sol solu sénégalais kii wekkoo kurus ci bat bi kii sol mbaxane sëñ baara yi bon ma xam ne ñi Sénégal lañ ñu ne ma salaamaaleykum ma fay leen mm. waaleykum salaam ñu ne ma waaw mbokk mi loon se seetaan ma leen waaye man de ma doon dem mais ma am problème bañ teewoon ma fii ñu ne ma ah loolu du da nga fay amul mbokk man leen dee wax dëgg yàlla amu fi mbokk ndax tey laa fi mës a ñëw daal mm. après nag ñoom ci lañ ma jëlee yóbbu ma seen kër voilà ma dem nag nekk ak ñoom donc loolu ci Maroc la quoi fan la ci Maroc loolu loolu Tanger la Tanger parce que fa la oto yi di jaar traversé bi ak bato bi yu demee noonu. d' Tanger. Euh, pour ñi nga xam ne xamuñu Tanger ci frontière u Maroc la nekk ak. Euh, Maroc Espagne Maroc Espagne voilà soriwul. Euh, voilà Gibraltar. voilà xaw na sori nag ak Gibraltar mais du même côté bi sax en fait. ok mais foofu mooy départ bi pour dem ay Gibraltar dem ay Alxasiras. de Las ay ñaata kilomètres lay toll entre Tanger ak euh, parce que dafa am solo ci suite bi si ay ñaata kilomètres lay toll par rapport ak euh, frontière euh, espagnole bi bon Tanger ak ay frontière bi je crois que su ma juumulee bato yi ñu ngi koy daw quarante cinq minutes wala une heure de temps je crois su ma juumulee parce que comme jotuma traversé ak bato normal d'accord Euh, defe naa loolu lañ koy daw daal suma juumul d'accord donc léegi suma nga juge Sénégal donc jël oto daal di yegg si Maroc donc plus précisément nga nekk Tanger donc Tanger waaw nekk poor bu am port bu rëy bokk ci gën a mag ci Afrique euh, donc Tanger léegi nag euh, concrètement si sujet bi Tanger fa nga jëlee gaal pour dugg Europe en fait su comprendre voilà voilà en fait fala mujj jaar aussi pour pour Europe parce que ci gaal yi la mujj a jaar. ok doo ñëwaat ci épisode boobu boo ci doon ñëwaat nan nan la demee ba à de Tanger nga xam ay sénégalais ba daal di nag daal di jël gaal gi déjà ci process boobu nan loolu nan la demee. waaw parce que ñaar ñooñu ma fekkoon ci buntu commissariat bi ñoom ma yóbbu seen kër. ma ma ñëwee fekk fa sama ay mbokki sénégalais ñu waxtaan ñun ñëpp xamalante kii fii mu dëkk kee fee dëkk kii nii la tudd ñu nekk daal. ay góor ak ay jigéen ñëpp nekk ci kër gi. bon benn bis ñu toog ñaari fan ñetteel bi ma gis ñu teg ay gaal di ko pompe ma ñëw dugg si ci néeg biñ ko doon defaree ni saay lii la la waaje ni ma gaal la quoi ma ne ko gaal gi lu ngeen ciy def mu ne ma dafa am ñu war a dem tey Europe ma ne ko fu ñu dem ci Europe ñu ne ma Espagne ma ne ko kon fii dañ fi demee mu ne ma waaw ma gis ay jigéen ma ne comme ay jigéen ñoom am nañ fi tujaar ci gaal gi man loolu du ma tere jaar ci gaal gi ma sa man defe naa bu jigéen amee fitu jaar ci gaal man war naa am fitu jaar ci gaal. ok donc waaye nag vraiment xalaat naa ko xalaat naa ko xalaat ndaxte dama bàyyi kom jabar ak doom ak samay waajur. ok xalaat naa ko daal lu yàgg ma ne est-ce que li may def du risque parce que bu ma dee ci ndox mi danaa lor daal. Mhm. waaw parce que sama jabar laa fa bàyyi sama doom te xale la te sama doom tam xale la. xalaat naa fa daal lu yàgg mais comme may gis ay nit ñi ngi dem di jàll. Hmm. ñenn ñi di dem di delsi waaw ma ni kon ma ni naa tenter sama chance rek loolu moo ma ci dugal vraiment. donc yëgaloo leen ko bi nga doon dem. non en fait ñoom xamuñoon sax fan laa nekk ci Maroc. Hmm. parce que ñoom après dañ doon dégg rek maa nga Maroc. parce que mujj ma jàll bi ma jàllulee ñetti fan yooyu ñëwatee foofu amoon nañ jaaxle lool parce que boobu yëpp wooteewu ma defuma dara bi ma génne nag ko naa leen xamal leen ni mujjuma jàll ndax dañ ma fay nangu kayit yaag yu demee noonu. d'accord baax ñoom ñu ne ma léegi da ngay ñibbisi wala looy def fekk na comme boobu jot naa xam ñooñu. Mm-hmm. te aussi idée boob mi ngi ci sama bopp bi te yàlla dimbali woon na leen ba ñu doon dem kenn deewu ci bu ñu demee dañuy dugg mbaa ñu ñibbisiwaat ba après nag kon ma ni xëy na dee xëy na ñu jóge Sénégal la parce que day sori malgré am na ñoo xam ne bu ñu demee dañuy dem des ci ndox mi parce que géej gi du baax te am na ñoo xam ni mënuñu xool météo xamuñu ndax dana ngelaw wala ndox mi dana yéeg wala yooyu yëpp parce que jànguñu am nañu moyen jënd gaal am nañu moyen fay jidd am nañu moyen fay capitaine bu leen dawalal seen gaal te encore c'est des pirogues à rame mhm. du ay gaalu moteur daal à Tanger bariwu fa am na fa mais bariwu fa fa doon bëgg a ñëwaat sax donc parce que bi nga ma nee sànq da nga gis ñuy pompe gaal c'est-à-dire yow li nga ma wax genre lu ñuy pompe la donc ni tubaab naan zodiac ay zodiac la mooy euh, xam naa dinaa après ci image yi ay gaal la pour secourir nit ñi lay doon donc dañ koy pompe mais da ngeen koy après ngeen jël ko yóbbu ko gaalu non non non dañ koy pompe pour vérifier ko ndax amul benn trou avant ñuy dem après bu ñu xoolee am na turu ñu kole ko bu dee turu bi énormul turu yu ndaw yooyu mais bu dee dafa am ay xottiku xottiku bon dañ koy sànni quoi wala ñu delloo ko fi ñu ko jaayoon parce que en fait militaire yi nekk ci tefes bi di nangu gaal yi ñoom ñoo koy jaayaat euh, gaay yi yóbbu nit ñi business la ci seen biir daal. militaire marocain yi quoi. voilà militaire yi koy nangu ci tefes bi ñu jàpp nangu ko. yóbbu la garde à vue après ñoom ñooy dama jaayaat gaal gi ñeneen. d'accord léegi donc yow nga daal di gis ne ay jigéen ñu ngi ciy dem ah yow tamit yow mi nekk góor nga ne ba pourquoi pas man quoi idée bi foofu la jógee suma comprendre mais donc du coup test bi concrètement nan lay demee à partir de Tanger bu ñu jëlee ci kër gi yow nga gis ne gaal gi pompé nañ ko mu nekk gaal pneumatique nekk Zodiac ci français dinaa wane image après euh, donc concrètement nan la traversée bi di demee entre Tanger à partir si kër gi ngeen di jugee. ba mhm. yow bos nan la demee. def nga ko plusieurs fois wala na benn yoon nga def ça s'est passé def naa ko plusieurs fois si je me pas def naa ko onze fois douzième fois bi laa dugg. voilà parce que c'est y a beaucoup de tentatives beaucoup de aussi échecs quoi beaucoup d'échecs. parce que da ngay dem parfois nga yegg ci àll bi avant nga dugg ci ndox bi militaire yi jàpp la. wàññi leen nangu bagage yi bu ko defee ngeen demaat liggéeyaat après ngeen cotiser waat jënd gaal fay waaji waaji fayal leen capitaine buy dawal affaire yu demee noonu après boole leen aussi ku leen yóbbu ku luwe oto oto bi moo leen yóbbu ci àll bi oto yi oto mafia lañ ko tuddee ay naar lañ en plus comme ñoom ñooxam xam àll bi da gis oto boo xam ne quatre places la war a def mais dañ ciy def douze personnes ba quinze personnes voilà du coup ñoom dañuy tegg chaise yëpp chauffeur bi rek mooy am chaise mooy am fauteuil mais li ci des yëpp dañ koy teggi ci la ñuy def bagage yi ci la def nit ñi yëpp waaw ba àll ba bu nu wàccee daw dugg ci àll bi ñi am doole gàddu zodiac bi parce que en fait bu ñuy dem ci sac lañ koy def parce que dañ koy peeralaat yóbbaale pompe buñ ko gonfler ak yëpp ku nekk sol sa gilet parce que comme gilet yi parfois day am lumineuse boo solee gilet bi ba noppi da jël sa benn veste wala dara teg ko ci kaw ba nga xam ne lumineuse bi du feeñ buñ duggee ci àll bi bu ñu militaire yi tegee seen torse yi. d'accord mm. voilà donc bu ngeen pompé gaal gi nag léegi ba ñëw ci tefes gi du gaalu moteur parce que wax nga ma ko sànq. donc nan la ñu bi ñaata temps lay jël yow en tout cas si douzième fois bi nga rombé. bi nga jàllee nan nan lay demee concretement bu ngeen ñëwee ok njëkk si ngeen ci àll bi jël gaal gi teg ko ci tefes bi nan lay demee c'est ça gi bu ñu yegsee ci àll bi dañuy làqatu ci suuf ay grotte parfois ñu làqatu ci suufu garab après gidd bi mooy dem xooli terrain bi ndax baax na wala baaxul su baaxee mu ñëw di jël si par kenn nit mais fi ñu wàccee montagne bi ñuy wàcc parfois pour dem ci tefes bi parfois nga gis montagne yu trente mètres parfois nga gis plus que ça parfois nga gis euh, montagne bu moyen que ça voilà c'est vraiment il y a des risques vraiment il y beaucoup de risques mais nag euh, parfois tu es obligé parce que da ngay dootoo am recul daal mhm. te li lay may courage mooy nga gis am na ñoo doon waxtaanal tey ci suba nga xëy suba yeewu ñun la ñooñu dugg nañ Espagne bon finalement yow da ngay soññu waaji sax ni ko tegal ma gaal tegal ma gaal wala boole ma ci benn groupe bu may demee yu demee noonu mhm. chaque jour yow boo nekkee ci sirgi rek buñ ne tey dafa am ñuy dem rek yow da ngay bëgg a bokk parce que yaa ngi gis ñuy dem di jàll léeg-léeg nga dégg ni kër nga jàkkaar lool am na ñu fa dem dugg nañ léeg-léeg itam nga dégg ni ñii des nañ ci géej gi wala ñii boobu ba kenn di gàttu leen yëpp da ciy am d'accord léegi suñ ñëwee rapidement si traversée bi donc traversée bi rapidement soo ma ko doon tënkal nan lay demee bi ngeen ñëw yow sa boss en tout cas nan la demee bi ngeen ñëw ma ñëwee. man bi ma ñëwee bi dafa ñëw dem xooli terrain bi gis ni terrain bi yoon bi baax na ñu jël ni ñu yóbbu. Mhm. bi ñu jëlee nit ñi yóbbu wàccee leen par kenn kenn ba ñëpp nekk ci tefes gi ñu tëdd ci tefes bi toog ñenn ñu toog ñi tëdd parce que dañ tafu ti taatu grotte pour. Euh, kii bañ leen gis quoi militaires yi garde ah. àll bi. waaye les garde côtes voilà le garde côtes léegi nag bu ñëpp ñëwee après nag dañuy toog def benn genre cercle ñu toog tàllal gal gi ci kaw tànku nit ñi ñëpp sumi seen dàll parce que day daal di dem ay dégg te dégg day bëtt gaal gi ñëpp sumi seen dàll ñu toog tàllal seen tànk jàkkaarloo de de de ba mu mat ñu teg seen kaw gaal gi am ku pompe bu ñu pompe ba gaal bi fees. ñu jël dàll yëpp def ko ci benn saako saako bi doon def gal bi moom la ñuy mujj def dàll yi mhm. parce que day secourir nit ñi parce que day may gaal gi poids ba nga xam ni ndox mi ko mën a këpp mais nag bu dee comme ñu am kattan la du ko jar dañuy jël dàll yëpp sànni ko ci àll bi wàcc ko fa dem mhm. léegi bu ñu duggee gaal gi buñ ko tegee ci ndox mi duñ ko teg rek brusquement ñëpp yéeg parce que du moteur dañ koy joow léegi buñ ko tegee ci ndox bi dañuy avancer avancer ba nga xam ni ku dem ba amatul pied ñu yéege kooku jàpp ko mu yéeg bu ñu avancer waatee ba keneen dem amatul pied ba nga xam ni ndox mi mu yéeg ci boppam ci baatam ñu yéegewaat kooku di def noonu di def noonu ba ñëpp yéeg après capitaine bi moom mooy mujjee yéeg parce que moom mooy diriger gaal gi moo koy jubbanti gauche droite léeg-léeg mu wax ba bu ñëpp yéegee noonu lay demee léeg-léeg mu ni côté bi arrêté leen ni joow leen léeg-léeg mu ni ñëpp joowandoo leen gaal gi da ngeen koy joow ak seen ak seen ay loxo en parce que fi gaal gi doon gaalu motor buy jóge Sénégal wala Mauritanie genre yéen ñi koy joowal quoi heure lay def loolu yow en tant que ñaata heure lay def pour dépend ci ci ci ci côté yi ngay tegee parce que am na foo xam ni ak Espagne sept kilomètres la am na foo xam ni dix huit kilomètres la am na foo xam ni vingt et un la am na foo xam ni trente la voilà léegi ça dépend ci côté bi nga tegee mën nga teg euh, ci set bi am chance nga joow deux heures du matin ba six heures wala avant six heures nga yegg su ngeen si vous ne vous pas dans la mer voilà noonu daal lay demee bu ngeen euh, réerulee ci géej gi mën ngeen teel yegg comme tam naari mën lañ leen jàpp bato naari militaires yi garde côtier quoi mën leen garde parce que ñoom tam dañuy def ay patrouille ci biir géej gi ni ñu amee patrouille ci tefes bi lañ amee ay bateau yu patrouiller léegi nga dugg ba ci biir géej gi bay waaj a international bi dugg ci ndoxu Espagne sax naa di dab la wàññi la te amuñu ci droit ce que d'après ce que j'ai appris quoi amuñu droit dugg ci international bi mais comme gis ñu espagnol itam ils sont obligés ñoom ñu jël la parce que parfois bëgguñu nga dee wala tam bëgguñu nga yegg daal. donc yoo sax boss concrètement ñaata ñaata heure la duré woon jour boobu boo koy si je me trompe pas maa ngi yegg ci àll bi ay minuit toog ci polo bi polo la ñu fi ñu ko tuddee polo la parfois mooy fi ñu làqatu mhm. toog fa ay une heure deux heures de temps le temps ñuy dem di vérifier ji est-ce que boobu militaire yi ñu ngi fi woon doon def patrouille mhm. mais ñoom dem un moment donné dañuy dem dugg ci seen euh, poste yi di noppalu ñii di nelaw wala yu demee noonu ñuy toog dina ataaya ñoom di waxtaan di jouer ay carte yooyu daal ñu ne si période boobu ñuy noppalu jee ñun ci li ñu parce que dañ leen may battement donc Julien ngeen euh, pour rapidement su ma ko doon résumé donc bu ngeen joowee et tout ban heure enfin minuit yan heure à peu près ngeen Espagne ñun ay deux heures du matin trois heures lañ dugg ci gaa ci ci mi ay deux heures du matin lañ doon pompé ay trois heures mooy ñu pare duggandoo ñun ñëpp bi ñu ñu dem bi ñuy joow ba ay cinq heures du matin mu commencé di leer six heures ci la ñu daje nag euh, bato marine espagnole bi d'accord waaw ñu gis nag marine espagnole yu bari ne ci géej yu bari sax ay plus de vingt marine ñuy daw bor bu ne di sauver nit ñi vraiment di jël nit ñi ñoom ku ñu jàpp dañ la yóbbu Espagne ok Marocain Espagne la yóbbu hum hum je veux dire ñoom bu ñu leen fekkee gis leen Espagne lañ leen di yóbbu quoi. voilà espagnol bu ñu la jàppee dañ la yóbbu Espagne marocain bu ñu la jàppee dañ la delloo Maroc. d' accord léegi donc voilà jour boobu donc nga dugg si dugg si Europe d' une façon générale. donc euh, après tey lan mooy lan condition yi parce que loolu yaa ngi deux mille treize la deux mille quatorze si nga si nga. c' deux mille treize deux mille quatorze waay. deux mille deux mille quatorze donc deux mille vingt donc d'une façon générale ba léegi yaa ngi Europe léegi dugg nga Europe eh, bi lan lan moo nekkoon sa sentiment sa premier moment yi nga yegsee lan moo nekkoon sa sentiment le fait que ni eh, ak premier mois yi eh, mi ni nga doon dundee Sénégal wala ni nga nekkee Maroc ni nga ko doon rêvé ak nga yegsi ah. lan moo nekkoon sa sentiment après bon bi ma duggee Europe j'avais le pressentiment que ni bon coono jeex na bon loolu laa njëkk a wax nee comme julit la parce da ngay defee ni coono jeex na mais fi la coono doore nag vraiment xëy na nag du ñëpp parce que yàlla tam dafa bind te yemalewul te jaar-jaar yi bokkul mais vraiment début bi c'était très bien parce que sama ay xarit laa fi fekk si ñu dalal ma bon wan ma yoonu liggéey may liggéey di ànd ñoom di dem boobu fan la Espagne la eh, ba Espagne la woon Espagne la woon ma def fa quelques mois boobu nag yàlla bi ma doon ma jóge fa dem Italie xam nga tam boy gan rek fu soo foo dégg sa xarit ma nga fa rek. Mhm. te nga gis mu doon am teraanga parfois wala yu demee noonu da ngay defee ne boo fa demee tam am teraanga ni moom mais yàlla di bindu te yemalewul mhm. vraiment ñi ma nekk Espagne dem Sénégal vacances man ma dagg bi dem eh, Italie seen ginnaaw. moom ma demee Italie début bi foo dem rek noonu lay demee daañu la ganalee dalal la wan la yoon jàppale la bu ne ba yaakaar na man ngaa mën a dem ñu balaak sa yoonu bopp mais nag ci sa yoonu bopp boobu boo intelligent wul tuuti wala ñoom yoon bi ñu la tegoon nga wàcc ko bëgg a jël sa bosu bopp direct carrément bon danga am coono tuuti. d'accord donc donc tey au tey jii nii enfin sa dund bi nan la demee si Europe bi ça se passe bien ay problème de papier demaat Sénégal enfin d'une façon générale nan nga koy dundee loolu yëpp. papier nag moom yàlla def nañu ba mu ñëwee ba léegi aw ma ko bon mais nag maa ngi sant yàlla parce que maa ngi ci jàmm daal. Hmm. parce que gis naa ñoo xam ni dugg nañ Europe mais ñii seen xel ñëwul. i ma jaaraloon ci gaal gi ñii des nañ ci gaal gi ñii ñëw nañ ba fii ñi ngi bëgg a delluwaat Sénégal te amuñu lu leen delloo vraiment ah waay ah. te te jaar nañ ci ndox mi ray nañ seen bopp ba ñëw mais tey buñ sañoon Sénégal la ñu yeewujee mhm. parce que ñii ñi ngi fanaan ci mbedd yi mhm. ñii ñi ngi fanaan ci ay waañ comme ni ma la koy waxee ñenn ñi ci foyer des jeunes lañ dëkk loolu mooy réalité tey ci ci Europe bi réalité voilà ba Europe comme maanaam ni ko rappeur bi di waxee rek kayit yi mhm. doon wax naan gars yi bu li ñuy incarné mooy tax sama classe gi di jël ndox meeg di fippu mais vraiment li ñuy daj fii kuñ ko wax doo ko gëm lan lan nga xalaat si ñuy wax tey ak phénomène bi nga gis ak cent quarante sénégalais yi nga xamante ne organisation internationale de la migration daf ne dañu ñàkk seen bakkan le vingt neuf octobre euh, nit ñi wax ne tey euh, ku toog ci réew mi tekk ci réew mi ak tamit euh, gaal gi tey nan enfin nan nga gisee loolu non toog ci réew mi tekk ci réew mi mën naa ne mais faaw nga am branlon parce que Sénégal boo amul branlon man xam naa ci dara dem Dralo parce que man footballeur laa woon dem naa ba petite catégorie petite catégorie équipe nationale bu Sénégal mais ñàkk Dralo moo fa jëlee après nag ci ngay xam ni kon Sénégal boo amul Dralo jarul ngay sonal sa bopp man fii bi ma ñëwee fii gis naa fi ñoo xam ni ay diplôme la ñu yor ay anglophone la ñu yor ay sénégalais yoo xam ne anglais lañu doon jàng ba ne fii di traduire ay tubaab dañ leen di jël ci ay conférence ñuy traduire. et pourtant Sénégal lañ ko jàngee mais kenn jëlu leen am na ñoo xam ne ci gaal gi lañ jaar ñëw te ñu ngi fii di liggéey léegi normal. mais yooyu situation yooyu yëpp boo ko dee gis parfois tam bon ngay gis nga nekk nit mu am diplôme yooyu mënut a liggéey mu jaar ci gaal gi ñëw fii di liggéey di tabax kër di am oto xam nga mën a am papier di dem ak dikk bon yow tam boo fekkee yaa moom yéen a wala nga yaakaar ni yow tam boo ñëwee destin bi mu am yow sa destin dana mel noonu tam ci obligé daal nga nga dina jaar ci gaal gi voilà noonu moo ci dugal nag ñu bari sama classe geeg yooyu mais du caagin ni dañ ko bëggoon vraiment mm, mm. donc tey euh, boo doon am benn conseil boo xamante ne mën nga ko jox ndawu Sénégal yi nga xam ne mën na am ñi ñi ñi si ñi ñuy seetaan ah, am ay ndawu Sénégal Euh, ñu am ambition peut-être def loolu te ñu xam ne nag réellement tey mooy wax naa ko ci benn émission bi jàll droit à la migration moom enfin wala droit au voyage dafa nekk li na xamante ne moom képp ki doomu aadama war nga ko am mën am mais li am solo mooy ñu koy jaarale ci ay yoon parce que comme ni nga ko waxee gaal gi tamit nga jël ko am na ay risques yu bëri bëri bëri bëri te bëri na trop voilà bëri na toll na ci mm. noo xamante ne l'idéal mooy tey ku bëgg a voyager mu jaarale ko ci ay yoon maanaam jël avion jël visa wala jël oto wala jël bato mais voilà man man su ma sañoon suñu gouvernement mooy jël bato normal ferry wala wala daal comme yow ferry bi nga naroon jël ci Tanger au début bi mais pas daal ay gaalu looco yoo xam ne ay chance ñàkk ci sa bakkan dina ci bëri lool lool lool ci bari na ci ñàkk seen bakkan vraiment am na ñoo xam ne xam naa leen ci ay sénégalais ak ay yeneen xeetu Afrique yu bari ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan waxuma la jël géej gi mais Maroc ci boppam rek Maroc ci boppam rek naari duñ la may jàmm vraiment am na racisme bu bu intense sax. mais est-ce que yow tey su doon loo xam ne da nga koy defaat di ko defaat par exemple. non non vraiment. du ma ko du ko digal sax. du ma ko digal nit sax vraiment jaaral ci géej gi wala demal Maroc rek du ma ko wax nit man vraiment hmm. vraiment nga yor diplôme nga ñàkk yor diplôme du ma ni nit demal Maroc man voilà je conseille à personne d'aller à Maroc ndax lan ndax lan loolu même bu dee liggéey rek je ne conseillerais à personne mais nag ku mu dal sa xel wala nga yaakaar ne soo demee mën ngaa liggéey bon vraiment mën ngaa dem mais man sama jarbaat sama rak buñ dem Maroc même pour immigration mm, duñ fa dem daal parce que am na racisme naari dañuy rayaate mhm. union européenne du wax seen autorité yi duñu wax te ñoom xam nañ lépp te dañuy gis chaque fois nit ku ñu rey mhm. nit ku ñuul en plus doo gis mukk fu ñu rey naar nit ku ñuul rek ngay gis ñuy rey waaw mhm. c'est pourquoi man bon man nekkoon en fait laay wax parce que am na ñoo xam ne kenn reyante wu vraiment du vie lépp la ñuy rey daal. mais nag apparemment vie lépp am racisme. ñoo ngi yegg si nag si si fin bi ci fin émission bi tey lan nga lan nga gis ne tey vraiment ci sunu contexte Sénégal sunu autorités yi ñi ñuy jiite parce que ñoom nag ñoo war a mën a tax wara mën a def ay affaires yi nga xamante ne jeunes yi dinañ toog ci Sénégal lan nga lan nga gis yow tey ci ay solution loo xam ne jàpp nga ne daal dina nekk lu am solo ci tey ci Sénégal. waaw Sénégal seen problème mooy dañuy wax création d'emploi mais du ñu créer dara ci Lamine la yam rek président bi bi muy defaat deuxième mandat doon eh, na fi def promesse ay cinq mille emplois mais ba léegi kenn gisul dix emplois ba léegi oh? sérieux man amul kenn koo xam ni xam naa ko te man je connais des milliers de personnes dire voire même des millions de personnes mais mm-hmm. aucune d'entre elles ne m'a dit que j'ai été embauché ou bien j'ai un emploi par rapport à l'État ou ça, jamais. bon am na ay boy yu ma bawoon sama koñ ñoom tam yàlla dimbal na leen jaar nañ ci gaal gi ñëw am na ñoo xam ñu ngi ciy génn am na ñoo xam tam nekk nañ ci ay jafe-jafe mais pour man Sénégal dafa war def comme Europe yëpp fexe waxtaan ak yi comme ñoom ni ñuy ñëwee Sénégal sans visa di delluwaat heure bu leen neexee ñun waroon nañu mën a am tam fulla yi def comme ñoom suñu autorité yi pour bu ñun bu ñu bëggee ñëw Europe ñëw Europe problème bu ñu bëggee ñibbisi ñibbisi sans problème parce que da ngay dégg ni refoulé nañ africain bi refoulé nañ sénégalais bi mais doo dégg mukk refoulé nañ français bi refoulé nañ italien bi alors bu ñu ñëw duñu am visa mm-hmm. te c'est pas un contrat entre eux man pour man suñu autorité yi pour ñu jàppale jeunes yi. Mhm. ku bëgg a tukki ñu yombalal la yoon bi dem dikk. wa illah ñoom aussi ñu teg règlement yi européen yi teg ku bëgg a dugg si Afrique wala Sénégal plus particulièrement nga wut visa pour ñëw Sénégal su jeexee nga ñibbiwaat parce que sinon buñ la jàppee ñu refoulé la. parce que ñun man gis naa ni ñun ñoo ëppal européens yi intérêt que ñoom ñun bi ñu am ci européens yi européens yi amuñu ko ci ñun bi ñu leen amal je ñoom amul ñu intérêt boobu ñoom seen intérêt mooy fexe ruiner ñu ruiner toute l'Afrique mm. parce que ya a beaucoup de choses boo ñëwee fii ngay xam zircon bi ñuy jaay Sénégal lay jógee zircon bi ñuy def ci avion yeeg yooyu. Mm-hmm. européens yi mënuñu am Sénégal lañ koy jëlee. Tour Eiffel matière yi ko defaree Afrique la jógee fer yooyu si je me trompe pas il beaucoup de structures yoo xam ne fii. yëpp africain yi ñoo koy liggéey ñooy gas yi ñooy dawal métro yi ñooy gas train yi bus yi ñoo leen di dawal ñooy def sécurité ñooy liggéey ci mbalit mi tu vois te ñoom ressources yooyu yëpp ñu fi defaree Afrique lañ koy jëlee kon vraiment ñoom buñ leen ñaan loon visa sax mënoon nañoo ñëw di ñu may visa parce que ñun buñ jugee Sénégal wala Afrique liggéey ñu amuñu liggéey buñ mm. ñëwee fi daañu am métier parce que daañu liggéey te mm. daañu leen jariñ aussi dëgg la vraiment. dëgg la en tout cas maa ngi lay remercier ah, li nga wax yëpp am na solo ça se voit que ni ku ku renseigné nga ci euh, li xew ci àdduna bi ak Afrique ah, ak Sénégal aussi d'une façon générale. Euh, lan mooy sa mot bu mujj ah li ñuy wax sa mot de la fin. bon euh, bon may wax daal ñi jaar ci gaal gi vraiment bu ñu mënoon a seet beneen yoon gaal gi vraiment moo gën. parce que ya a beaucoup de risques daal ku ci jàll rek yàlla dimbali am na ñoo xam ne tam yàlla dimbali na leen mais ñoo jàll Maroc man neuf mois laa fa def mais am na ñoo xam ni def nañ fa sept ans ñi ñi nga fay def euh, plus que neuf mois te ñoo jàll ñi ah, da ngay gis nag ñoo xam ne ñoo nañ deux jours wala une semaine ñu dugg ci gaal jàll mais vraiment c'est pas c'est pas une bonne solution quand pour pour euh, pour voyager. Mm-hmm. ku mën a jaar moom ci yoon bu légal parce que yoon bu légal gëmu ni sax aussi dana gaaw am Sénégal wala Afrique mhm. parce que la la plupart ku jàngul wala amoo bourse duñ la may visa mhm. da gis ko am mbokk fii sax mu yor kayit bëgg indi mbokkam mais day am problème indi ko mhm. ça c'est pas normal ma bëggoon vraiment autorité yi xar ci seen tànk tugay pour dimbali les jeunes daal ak ñi nga xam ne am na diplôme pour liggéey foofu ñu jëppal leen ñu liggéey parce que am na ñoo am volonté ñoo xam ni xalaatu ñoo jóge Sénégal mhm. parce que gëm nañ ni fa lañ mën a tekkee mais nguur jàppale wu leen parce que amuñu bras long comme ni ma la doon wax sànq mhm. vraiment may ñaanal ñëpp na jàmm ñi jaar ci gaal gi yal na leen yàlla indi ci jàmm ñi ci xalaatul jàll aussi yal na leen yàlla defal jàmm te defal leen te jox leen ci ñu jàpp ba ñu mën a suturloo yor seen jaboot ak seen waajur parce que ku ne loolu nga bëgg voilà di ñaanal ñi fi nekk jàmm ak ñi nekk Sénégal ñëpp jàmm di ñaan ci àdduna bi yëpp jàmm vraiment. maa lay remercier bu baax flow flow ah noonu laa la mën a woowee waaw waaw waaw noonu la lay remercier ci sa disponibilité nga ñëw waxtaan merci waaw ñoo ko bokk en tout cas expérience bi nga am ci affaire yi ak conseil yi xamante ne yaa ngi am pour jeunesse parce que damay am habitude di ko wax ne euh, tey Sénégal su ay ndaw rek ñu ko mën a ñun ñi mun tabax Sénégal parce que tey Sénégal li ëpp ci population bi ay ndaw lañ euh, moins de trente cinq ans la ñu am soo ñu jëlee euh, soo ñu jëlee ci quarante deux pour cent moins de quinze ans la am soo jëlee âge moyen en population Sénégal ci dix neuf ans la toll donc Sénégal nekk réew boo xam ne réew bu ndaw la donc nag dafa euh, am solo te dafa jot aussi sunu ñi ñuy diriger sunu nguur yi nekk ñi nga xamante ne conscient nañ ci enjeu yooyu et dinañ def de telle sorte que lépp li ñuy teg comme politique publique de développement mu nekk li nga xamante ne d'une façon générale dina orienter jeunesse te dina toucher dina impact ci jeunesse bi dafa am solo. donc maa ngi remercier ah di la ko bokk. jagee euh, ajjuma bi di ñëw incha allah ci seen beneen émission ci sunu gaal ca kanam asalaamaaleykum. merci.